gën jege ay clientam digital store yokk na réseau ubbi showroom bu bees tàq ca Colobane immeuble CMS janoo ak somba Samba Diéry Diallo digital store di leen proposer gam bu yaatu ci wàllu électroménager ay téléphone u qualité supérieure ay matériel informatique de dernière génération lépp lu mujjee génn ci informatique fekk leen ko digital store digital store di représentant exclusif moom dong moo fi teewal marque bi di Crosscall ak ay téléphone portable yu mucc ayib dëgër lool ba noppi étanche ñu garanti ko ñett ba juróomi at benn defarkatu téléphone ñemewul garanti téléphone juróomi at digital store mooy yëgal ay clientam ne am na service après vente bu mucc ayib nekk fii ci Colobane nga xam ne dañuy liggéey 24 heures sur 24 am équipe boo xam ne dafay jóge ci place bi dem ba ci seen kër mën nañoo liggéey 24 heures sur 24 fu ngeen ñu soxla ci Sénégal suñu service après vente dafay def tamit ay contrat d'entretien ay contrat de maintenance ba noppi te di leen gunge ci bépp réparation ak entretien yu seeni appareil yi ngeen jënd ba noppi seen partenaire de référence Digital Store mën nga jokkoo ak ñoom ci 33 840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 هماني هلا ماهن ما الأبس والسفر حمدت من يعصمني من الضرر من كل شيطان وجن وبشر حمدت من يعصمني من الضرر Mbàkke Bari moom mooy mujjug liggéeyam ci étape bu njëkk bi ndax bi mu ñëwee Mbàkke ba ba ni ma la waxee ba ama dasi mu sanc Daaru Salaam nekk fa ba ama wasi si 1306 mu sanc nekk fi ba ama bay sa si 1312 mu sanc nag Mbàkke Bari Mbàkke Bari la sababu sanc ga dañoo wax ne ñaari am na ñaari sabab am na sababu zahir am na bu baatin sababu saaxir bi mooy <coughs> eh, moom sëriñ yëpp tërbiya la waaye ni muy defaree xar baax bi ne ci moom tax na nit ñi réer di ko wutsi fu ne nit dafa bàyyi ko di ko seet si ngir ngir liñ dégg ci moom te li muy liggéey bëgg dara yàqu ko te bu fekkee ñeneen ñu bokkul parce que ñu ngi ñëw di jaxasoo donga yi loolu day yàq ab liggéeyam la bokk li tax nag mu dem nag wuti fu sori fa dafa làqatu ngir def ab liggéeyam ma saw bu saahir bi tax mu bàyyi ko Mbàkke euh, Touba boog dem sañci ci euh, Mbàkke Bari étape bi nga xam ne ci la sëñ bi nekk Mbàkke Bari Jolof te bàyyi ko woon Touba ndax euh, pour nga ngir nga gën koo dégg yow mi ñu koy waxtaaneel mooy mm, am a bay sasin tolloog 1312 ci gàddaayu Sayyiduna Muhammad ca weeru koor wa ca la doon def lanti kaata kaaf jooja mu def ci jàkka ji sëñ Mbàkke Madina defaraat ñu koy wax jàkka yi sëñ Mbàkke Madina ci darul xuddus waaw fa la ko Seydina Muhammad fekk te jaayante bi ñun ñëpp ñu dégg ko dégg nga sax Baye Moussa wax na ci trait boo xam ni lu gàtt la rek waaye doy na sax wax ji mën na koo leeral mooy ci foofa ko yonente ba fekk te mu wax ko ni bokk ci ahlu badar laa bëgg waaye dootul dootu garaat bi nga indi rek waaye bokk ci ahlu badar ñi nga àndal bokk ci ñoom laa bëgg te te yonente ba waxante yaag moom la ma waxante ak moom maanaam tënk la ca Baye Moussa Ka wax mooy buur yàlla daal di signé jox yoneen ba mu signé gaaña daal di jiital Bamba lisaanu xaal daal di waxanteeg Bamba ca saaru Yuusufa mu teeñu jan ba Bamba maay na ma dalub lislaam bi saf leen ma jóor leen ma dinaa ko jàmm yàlla dogal nag foofu dëkk boobu ñu ko fekkoon fa la woon yàlla ni ko wajaxal xarimana xariman amina wa kun bi xifdihi kafilan daamina wañ lub laxal xayra minal jihaati jàmm nay dugg ci réew ci dëkk bi minal jihaati jóge ci wet yépp mel ni yàlla dañu ko yan wet mu ne ko asitti asitti mooy kanam ak ginnaaw ndijoor ak càmmoñ kaw ak suuf wajal alimana aliman amina wa kun bi bari na koy wax ay jiha du ci boole kaw ak suuf sëñ Tuubaa nag da cee boole kaw ak suuf moo tax mu ne waaw a sitti wajlub lahal xayra min al jihaati a sitti ñoom juróom benn jiha yëpp na ci jàmm di jóge di tabbi Tuubaa yàlla nag xamal Sëñ Amadou Bamba ko ba weeru koor ga jeexee rek mu xamal ko ne ah yaa ma ñaanoon ni dëkk bii na la fi jàmm rek di fekk kon lii nga xam ni mooy li ñu waxante maanaam bu ma doon wax waxi waxi jamono ji dama naan contrat bi mu signé ak bi kon sama borom xamal ko ni balaa mën a tàmbali da ngay génn fii ndax yaa waxoon fii bu la fi aw ay fekk. mooy sababu baatin bi nag mooy ñu wax ne koor gi ku mujj a fekk Tuuba fukki fan yi mujj ci koor gi da cee dugg xalwa mooy koor gi ama bay sasin muy 312. bu duggee xalwa nag ci mujj xalwa li ko yënd saa sam feesu feeñu ne ko sëñ Malick Diop nettalee ci Irwan Nadim feeñu ko ne ko Ahmadou day lii ngay sàkku na ko ci dàkk jàkkee daal ko doos jiile. ci doon dugg xalwat booba dañuy wax ne booba jàkkee dóor dóor la mooy dóor mooy sàkkatu ngeer ñu mbaa ñu xadde ko gattax ci kaw ñu ko feeñoon ne ko li ngay sàkku de bari nañu la jiitu ñu ko daa sàkk waaye képp koy sàkk ba suñu moom jox la ko te rafetaloo ko waxuma la nga nga ñàkk la nga doon waaye da nga fay jaari yàqule ba faaw sama xarit nga boo xam ne bëgguma dara lu la yàqal ne ko sa diggante matabatu xutbaan yi des na ñetti mooy li tax nga am daraja darajay euh, xutba samaan waaw mees laa jégal ñetti weer yi àggal la ca tey tey ta nga toog nag suñu ton ko ne ko man de xutbaa ni yàgg yëpp taxumaa jóg li ma tax ju daal mooy mbooloo mi ànd yow muy ahlu laa bëgg bokk ci ñu ci yow nu ko ah loolu nag day da ko réyal ko ba ba mel lu faat mu ne ko la koy maye day ay nat lay doon ay fitna ay tartar yoo xam ne bakkan du ko attan mu ne ah, man de dama bindu sama bakkan bay xam lu mu attan ak lu mu sama borom moo bind bakkan moo xam lu mu attan waaye lépp luñ ma teg day lu mu diis diis diis lu mu tartar tartar su ko bakkan bi dékku sama jom sama jom dékku na sama fi dékku na kon nag bismillah waaye bismillah ji day ànd nga génn sa dëkk bi du Tuubaa nag ndax gannaaw Tuubaa ñaan nga suñu borom aaral aaral la suñu borom nangu na ñaa ngi aar na ko aar na ko li fay yaa ngi fi benn dool fekk kon faaw nga génn Tuubaa junj koy nijaam sëñ Bousso bi ne ko dafa dafay ko am ijaaba suñu boom di delloo ñaanam te buñ la tegee nat bi daan ñaan te bu ñaanee suñu boom na ko tegg te bu wàll nga bëgg doo ko am mu ga ba mu jeexee rek la daal di génn Tuuba nga xam ne koor nañu wax lañ wori at mooma ajjuma ca gaaw ba rek la daal di génn Tuuba nekk fa koor yi diggi tabaski at mi dee ñu dugg à 1313 biñ duggee 1313 nag ci tamxarit bi rek ci la rooxale yeeg jaxase tàmbali ba niñ ko génnee ci 18 safar. kon Mbacke Bary lépp lépp lépp ci juróomi weer lañ koy tënk diir bi mu fa nekkee nag ci la sababu sababu baatin bi moom mooy li ma la netti woon ci l'intikaaf li ma la netti woon ci l'intikaaf ga mooy sababu baatin bi sababu baatin bi tukki bi. wala waxanteeg boromam war a dem amul lu dul aw fas te te ñàkk dem te moyen transport bi moom aw fas la te fas du dem Gabon kon léegi faw sababu zahir ñëw ngir mu jàpp moom ki amulu ko mën a yóbbu Gabon sababu zahir bi mel ni koo ko jàpp fekk moom mi waxante woon ba war a dem moo ko jàpp wax na ak yàlla ca Touba tënk ba war a dem ba ñu signé contrat wu dem bi munta ñàkk a dem aw fas la am ci moyen transport te munta ñàkk a dem kon la koy yóbbu faw ñu am ko moom mooy mooy liy waaj a ñëw ci étape bi may ñëw mooy sababu zahir bi nag léegi nag kañuy wax Samba moo ñëw chef de canton la woon moo ñëw dégg ko Mbàkke Bari loolu sababu zahir bi ñëw di seet si nu mu toogee ak di ko xamal ni bu yeboo nga waaj ndax fii maag yow mënuñu fee nekk mu ngi fay nekk waaye yàlla miy dogal ci dogalam yi dogal bis bi sàmbalaw bi ñëwee yendu ci sëñ tubaa di wax ak moom waxit ngir mu génn foofu ndax moom moom xajoowuñ ci suufus jolof ci yan kenn dalam googu ca la fa maam abduloo pour lu yàllay dogal rek ci kendal googu sàmbalaw ba yendu fa fa maam abduloo jaar bi fa jaaree fekk fa sàmbalaw ba bi mu gisee sëñ bi xool ni ko dama doon xool noo toogee nangam nangam ba war a dellu te maam Abdoulou moo daal liiral courrier yi gouverneur moo daal di dëpp jaarlu Louga fa ñuy defaree cachet wu chef de canton ya far yàlla mu fekk fa cachet sàmbalaw bi ñu bàyyi Mbàkke Bari mu wut aw kayit dóor kase bi ci suuf génn daal di cay bind gouverneur man sàmbalaw bi ak Cheikh Ahmadou Bamba ñoo ngi fii ci Mbàkke yi wax nañu ñu la waajal fu ñu la fekk bettunu la maanaam dañuy fetal jaar ci sa kaw daal di dem dugal ko ca courrier te moom moo war a liir courrier bi bi mu ko dugalee li liir ko jotee góornóor génn mu koy liiral ba liir li nga xam ne moom moo ko bind ci loxoom waaye sàmbalaw bi lañ ko adressé parce que moom la ci kaseem nekk te dajam tubaab kayit li mooy sababu sababu zahir bi mu daal di mu daal di jàng bi mu jàngee loola nam ba mu ko jàngee euh, góornóor daal di koy wax nii ñu nu ñu def ak ñoom mun ko xanaa nga jëli leen li mooy sabab bi gouverneur daal ci ànd xarate yow ma sabti famina achar li xidmati waxtaan fi cheri safar waaye nag foofee nag bi muy dem dafa yóbbaale maam Thierno ak Sinda Abdourahmane Lo ñiy jàng alxuraan mu jëleen suñ mbooleen Sinda Abdourahmane Lo ñiy jàng xam-xam mbooleen maam Thierno ànd ak ñoom dem suñ mbàkk bi su ma ne ko yow da ngay des nag fii fii ci Touba wutuma fi képp ko jóg tama tax koo jóg su fekkee dafa ñëw du fekkee lu muy joxe joxele na la ko jox su dee lu muy laaj na la ko laaj koo ci xam ne seet nga gis ko war a assi ci man la nga door ko bàyyi na mu assi man waaye nag ñu yëg ne suñ suñ baa ku ne fa ku jug ku nekk da fi nga fi nga war a jóge nii yoon bu gën a jug ci mbàkki mbàkki bari nga daal di wuti mbàkki bari waaye foofu comme yàggu fa ñett weer la fa am euh, sawaal mooy kori diggi tabaski tam xarit muy ñeenti weer rek bu duggee ci na fukki fan ak demee ba bisu fukk ak juróom ci aw safar di àjjuma ci takkusaan ci la sëñ bi yëg dem gi nag mu daal di bind xasida xasbunallahu wa ni'mal wakil takkusaani àjjuma la sëñ Tuubaa bind xasida hamitu man yasimuni min dara من كل شيطان وجن وبشر حمد من يسيرني من الدار من كل شيطان وجن وبشر lépp man yaazimuni min ad-darar maa ngi sant ki nga xam ni moo may musal ci wépp ay ci bépp lor waaye bépp lor nag min kulli seytaane ci bépp seytaane wa jinnin ak bépp jinne wa basar ak bépp doomu aadama xam nga ñett ñi daanaka ñoo fi ne takkusaani ajjuma waxtu ñaan la lu ci waay ñaan yàlla nangu ko takkusaani ajjuma la Sëñ Tuubaa bind xasida xasbunallahu wa ni'mal wakil bayit bu njëkk bi wenn bayit ci xasida gi doy na sëkk lépp ba bi muy xëy dugg ci jàkkaam ji génn jot ndigalu yàlla yàkkamti borom daaru sëñ Touba ku ne xam ne ndigalu yàlla jëf rek la ci xam boo gisee yi ñu koy waxal ci waxtuy julli ak ko koor rek loo dégg ñu ne ndigalu yàlla boo gisee sëñ Touba daa ci demee lu mel ni fitna mooy moom dafa yàkkamtee jot ndigalu yàlla ba jëf ko waaw léeg-léeg borom xam-xam yi dañuy waxtaan ñuy wax ni da ngay muñ ak jaamu yàlla muñ ak mooy yàlla sëñ Touba musta muñu jaamu yàlla moom jaamu yàlla xam nga li doon plaisir ci yow doo ko muñ sëñ Touba jaamu yàlla plaisir la woon ci moom bu ndigalu yàlla rotee day gaaw ngir jëf ko moo tax mu yàkkamti woon borom daaru ñëw mu nekk ci diggante ñaari garab yooyu ak barab boobu yeneent bi waxe ko imsi laa tax sa dara boobu ba borom daaru nit ci fajar googu nuyu ko mu wax ak moom yi muy wax ak moom borom daaru ku ne dégg na li xew daf ko bëggoon a nettali lépp li mu wax ak tubaab bi mu ko ceerno dara matunoo nettali ndax boobu yàkkamti naa jëf ndigalu yàlla de ndax mu ne ko ceerno dara matunoo wax ceer ceerno bi nga melee ni ku taxaw ci dett mbeer di wax ak diw xorondoom yi doon dox sa seen diggante tànk yi maa ngi ko doon seen daal di dox ànd ak Cheikh Ibra Faty mel ni ku jëm ci kër gi ba mu yàgg mu taxaw freiné ni ko na ci man dem jot naa ndigalu yàlla ci dem dañ ñu maam ceernoo dugg waaj takk fas wax war wet awnullaahi indi ko wax nañ daanaka meloon nañu ku dog yoon wa sax ndax moom ndax bu ndax ba ndax yàkkamtee dem maam ceernoo tolloog moom ni ko bismillah mu dugal tànkam ci digalu fas wi bi ci kaw fas wi ba toog fas wi dox yetti jéego mu téye ko téye birdon bi ni ko ana Mouhamadou maa ngi maa ngi taxaw. nag ko def jant ba so ci ci aji mu ja ci suba sa. ñu hmm. daal wax yu sew sew nii wax wéla wax sax la dajal teel. waaw bi génn ci jàkka ja. Hmm. takkal nañ ko fas muy war ba noppi. Hmm. mu woo ma maag maag sëñ Mourou Moustapha ñun ñaar boo noo fa nekk ci di gone. waaw ci penc ma. am na foofu garab goo xam ne sax garab la gudd gudd. dañ ko gor léegi. waaw wan nañ ñu ko. foofu lañ taxawoon boobu. waaw fa fa fa taxaw fa lañ taxawoon fas fa. waaw ci doon war dañuy war a ñëw si wetam. waaw. ñëw mu teg loxoom yi loxoom ndeyjoor wax nañ ni mu wàcc ko ba mu jot bopp suñ Mor Moussa loxoom càmmoñ ba mu teg ko ci bopp Cheikh Mamadou Fadal dénk leen boromam boole seen yaari loxo teg ci loxol Cheikh Ibrahima Fatim leen ak seen bàyyi Thierno daal di doxal nag wan leen ginnaaw wax na ko yu bari waaye wax ñam ci ñaar yu am solo rek yoo xam ne ñëpp war nañ cee jànge wax nañ nee na dafa dafa téye biir bi ni Ceerno Cheikh Ibra Faati ñukk jege ko ñu ko Ceerno nanu jàng nanu yaru Ceerno bu ci benn nanee naree ñàkk nanu yaru waaw yàlla nañu yàlla seeyal ci moom wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu salaatu llazi fi kulli sahrin wa fi safar hamaani hala maahin maal absa wa safar